ngeen jëf mbokk internet yu Medina TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek mbokk yi dañuy ñëw ak yéen ci xibaar ñeel rek ki nga xamante ne moom mooy Sadio Mané Sadio maane nag bu ñu ko waxee nekkatul koo xamante ne dañ koy présenté ci réew mi grâce à performance yi nga xamante ne defar na ko équipe nationale du Sénégal waaye rek àdduna wërngël këpp de passage ci club yi nga xamante ne kon jot na fa wane li nga xamante ne moom mooy xarañteefam bokk ci Liverpool ak fa nga xamante ne moom mooy Bayern nekk rek jamono ji fa nga xamante ne moom mooy Al Nassr boppam bu baax a baax baax kon ñu jotub xibaar bi fësal ne day takk soxna ginnaaw kon bi mu biñ biñ ko dalee dégg mu ànd ak polémique bu bëree bëri ñu naan am naam du am euh, ñu bëri rek di yee yàbbi ca mbir ya mu xibaar ba lu wér la ginnaaw rek biñ amee kon ay information yoo xamante ne ay jegeñaaleem lañ ñuy fësal ne kon xibaar boobu lee lu am la day jël soxna kon ni ki samedi bi lee set ca nga xamante ne moom mooy Kër Massar ci fàttali rek ne yàgg nañoo wax nag ne joueur boobu euh, dañ koy étif tafal étiquette ak ñeneen ñoo xamante ne ay célébrité lañ ci réew mi sax ne dafa nekk ak ñoom en relation wala en couple waaye mu mel ne mbir yi rek dara amu ci ndax euh, ci xibaar kon euh, jot nañ ne ki muy jël soxna kon ab cousinam la di wuyoo rek ci turu ki nga xamante euh, mi ngi koy waajal bu baax a baax moom joueur bi waaye ñu koy félicité rek bi nga xam ne itam defaat na ko ca fa nga xamante ne moom mooy Bambali ndax buñ ne Sadio Mané ne Nacho wala ñu ne Sadio Mané ne l'enfant chéri de Bambali ak exploit exploit yi nga xamante ne saa su nekk moom ko fay def pour suqali li nga xamante moom mooy goxam à travers école yi liñ fay tabaax ak euh, lu mel ni hôpital yi bi la yoon rek kon mu dafa dafa ab terrain de football daal di rek ñaax xale yi nga xamante ne bëgg nañoo nekk ay futur champion comme moom li nga xamante ne noonu la ko bëggee woon te amul woon possibilité bi nga xamante ne doo xale yooyee tey dinañ ko mën a am ba jëriñu ci su ko defee rek kon équipe Medina TV yëpp daal di koy souhaiter un très heureux ménage ñaanal ko rek lépp loo xamante ni tam mi ngi koy séntu ci sëy boobu rek mu am ko te daal di barkeel jaa ngeen jëf